ko ca seqet ba mu set yoonu néew ci mhm. d'accord ci il s'est même permis quelque kii jëmale ko ci Diouf Sarr mhm. beneen bi mooy euh, fi maam xarit jeexale muy li xew euh, Tchad actuellement euh, ñu ci bëri ci ñun mu regarde ça de loin parce que Tchad dañ koy dégg rek lu sori ci ñun la mhm. alors que li fa xew fan yi daf ñu concerner directement pourquoi parce que ñu bëri dañoo jàppoon ne moom de bi dafa nekkoon benn bouclier Euh, de tout le Sahel pratiquement contre le terrorisme mm. euh, parce que combat yu bari mëne na ko contre le terrorisme je dis pas qu'il a raison ah je fais que constater les faits et que tey Idriss Déby euh, dee na Euh, l'État tchadien est de se disloquer parce que doomam bi ko remplacé sax il ne fait pas l'unanimité au sein de l'armée mm. su ñu deful ndànk li xewoon Libye euh, sous Kadhafi mën na xew Tchad te bu xewee Tchad du bàyyi Mali du bàyyi Niger mm-hmm. te ñooñu dañ ñu jege lool lool lool. Mhm. moo tax c'est important que le journal revenir si sol parce que ça nous interpelle directement. Okay. et c'est pas pour rien que le président Macky bi mu déggee wax li euh, euh, décès bi li mu njëkk a wax mooy euh, Afrique perte na un élément. stabilisateur koo xam ne doon stabiliser le Sahel te effectivement Idriss Déby loolu la lool la doon joué. loolu la doon joué mu nekk lu lu lu am solo mais itam dama ci prox ndollu ci sa wax jooju rek pour dugaale carrément ci actualité. Hmm. rawatina ci mbiru APR bi nga xam ne comme ni nga ko waxee. Hmm. oui oui Pape dëggal rek Moustapha ci rôle lu Déby au niveau du Sahel et de l'Afrique. Hmm. Euh, je crois que finalement. Euh, il a été l'un des chefs d'État bi nga xam ne il a pris son courage à deux euh, damay wax fi encore dama ne mës naa ko wax fii ci plateau bi ma ne ko bala ngaa xam ñàmbaaraay euh, armée tchadienne mhm. il fallait nga dem couvrir la guerre du Mali mhm. gis nga français yi résultat yi ñuy targué wu de 2012 à 2013 mhm. dafa ñu ci dara man yàlla jàppale na doomam ji ko remplacé moo jiite woon. moo ko jiite woon ma ne man bokk moom bataillon bi mu jiite woon. Mhm. maag benn journaliste espagnol bi nga xam ne dama doon liggéey àll dama doon liggéey ak ñoom El País dañu bokkoon ci kii gis nga dama ne. Mhm. diplomatiquement rek diplomatiquement nañu may nañu may bi ñu ñëwee ba egg si il faut naa leen nga xam ne nettoyé nañu sa ban bi yëpp français yi pour wane rek ni que ñoom. à travers l'opération Serval taxaw nañu. Mm-hmm. Mm-hmm. nañu ne Tchad nañu stoppé ñoom ñu soog a dugg dans les fogages non c'est pour dire encore la dimension de ce monsieur gis nga doomam boobu il n'était pas le seul il y avait de Habré kenn ki fa la deyee. de de de Déby. de Déby de de Déby. kenn ki fa la deyee gis nga le lieutenant colonel bi nga xam ne moom moo di doon diriger le détachement bi ñu doon toog guddi di waxtaan nii. mu ne moom ñaar ci doomam ñu ngi ci batayon bi te tey moom luy ndamam mooy bu eggee càdd buñ ko laajee mu ne samay doom dëj dëj naa leen dëj naa leen Mali. moom mooy li suñu confrère bi di wax Karim Diakhaté mu ne en fait euh, le Tchad pour nga comprendre ko un peu bité. Mhm. c' est un peuple de bokkuñu ak ñun. ñoom peuple combattant lañ. combattant ñoom peuple guerrier lañ. peuple xeexkat lañ. Euh, euh, bul fàtte ne Hissène Habré mii laqatu fii Sénégal moo duma Xaddaafi ak ay soldaaram Hissène Habré moom moom la début kii dafay benn image bu Karim Diakhaté di wax très souvent et ça montre dimension bi peuple boobu ñemee guerre. ak ni ñu ñemee nekk ci ci yooyu mooy. nee na euh, ar euh, euh, boo gisee N'Djamena mhm. manifestation de joie rek xamal ne armée bi mooy génn di dem di guerre yi guerre ji ñoom bu armée bi di génn di dem di guerre yi nga gis ñu génn manifester te bu ñëwaat bu ñëwaatee également noonu la ñuy manifester pour wane seen mbégte ci li armée bi def et d'ailleurs bi tey gis nga nee nañ bi kii jihadistes yi envahir le nord du Mali français yi war a ñëw mhm. Euh, am na à l'époque ñu dox naa président Macky Sall lu tax yow néewul alors que le Mali c'est à côté mais nee nañ euh, les soldats tchadiens dañu jóge Tchad Tchad traversé tout le Niger Niger mais nañu jëm ci match nawetaan mhm. di yuuxu di kii ba Mali ba Mali duma ña fa ne français yi soo ko ñëw non mooy li may wax c'est ça le Tchad non non non c'est-à-dire xoolal Hissène Habré qui est un énarque xam nga ñu bëri ci ñun xamuñu ne que Hissène Habré euh, nana mhm. Hissène Habré n'a jamais été un militaire par rapport contrairement à Idriss bi mhm. mais Habré un énarque ki a réussi à battre la Libye à dérouter l'armée française donc c'est pour confirmer rek li nga wax ci mentalité Tchad ah donc aujourd'hui c'est l'Afrique qui perd vraiment oui. un stabilisateur donc euh, il faudra que suñu dëkk yi d'accord moom dinañ ko fi aborder il faut que suñu dëkk yi voilà oui Aliou Bah, j'ai juste envie de relever un truc c'est vrai que c'est important Idriss Déby mais euh, euh, euh là on parle des Tchadiens en général. en général euh, en général c'est pas forcément Idriss Déby euh, je, je je pense que ni c'est vrai qu'il est parti yàlla na ko yàlla yërëm mais il faut qu'on relève une chose aussi ay contradiction yo loo xam ne dafa am entre les relations euh, donc franco-africaines. parce que finalement euh, il faut ñu fàttaliku ni euh, chaque année euh, ou, ou, tous les jours on en parle ne ne Sénégal euh, Sénégal Afrique en général ne ne ne ne démocratie ñaari mandat la kenn amul droit def euh, plus de trois mandats fu nekk ñu ngi ko fay wax. Mhm. adduna bi yëpp ñu ngi défendre deux mandats et puis et puis arrête là alors que. Euh, bi Déby quand même toogoon na taxaw ne waa France moo ñoo ma ne man ma continuer di am plus de deux mandats ba nga xam ne Idriss Seck quand <laughs> <laughs> non Aliou Sow il faut s'excuser ah. parce voilà. que parce que parce que ça fait kay Moussa Ba. qu'il est qu'il est qu'il est au pouvoir. bien sûr mm. limitation mandat yi lan mooy démocratie véritablement. Ah. loolu aussi mën na ci wax est-ce que des fois aussi ñun dans nos pays euh, euh, tubaab yi ñoo ñu war a wax. Oh, Euh, euh, au Congo Congo Congo démocratique eh ben eh ben foofu euh, Kabila warul def deux warul def plus de deux mandats mais Idriss bi war na def plus de trois mandats quatre ba cinq ba six tey nii ba bi bi. parce que moo doon défendre seen intérêt. mooy défendre seen intérêt donc ñun aussi des fois ñun il faut ñuy xalaat ci affaire deuxième mandat yi wala trois mandats est-ce que dans le fond. Euh, war nañu mën a taxaw ne euh, euh, Sénégal aussi di exige di ñu exiger ay ay deux mandats ak yu demee noonu ça ne veut rien dire il faut que mu corresponde avec les intérêts immédiats du pays par rapport à ce qu'on veut de l'avenir dans les dix prochaines années trois dans les ou même les vingt prochaines années pour une stabilité mais fii stabilité militaire la. Mhm. équilibre mais stabilité économique pour ñu am ko est-ce que war nañ di enchaîner aussi c'est des questions qui sont posées. est-ce que war nañ di enchaîner toujours ay ay soi-disant que nit ki war am deux mandats et kii foofu la war a yem. kenn bu ñëwaatee wala yeneen benn nguur bu ñëwaatee ñu recommencer à zéro. Mhm. déstabiliser suñu système économique. yooyu yëpp c'est des réflexions à mon avis sur lesquelles parce que bu euh, a tere Idriss Déby parce que Idriss Déby ce n'est pas le Tchad en général. parce que lui il était la tête de ce pays. bi d'accord voilà voilà. Ah oui da nga gis rek foofu parce que Aliou man xamu lu ma gëm. mooy que ni état bu mu ti doon. Hmm. dañoo war a teqatle nit ki ak institution yi ni muy dox. absolument gis nga tant que ñu ngi xalaat ni nit moom moo def nangam. dañuy nax suñu bopp rek c'est-à-dire que amul benn réew bu ñu mën a comprendre nit mën a def 30 ans au pouvoir hmm. cest dire li ñu war a def mooy xalaat un système stable boo xam ni teg nañu réew mi ci yoon ba ku mën a ñëw ci ngay tënku loolu tant que defuñu ko di wax ay nit kii moom moo fa def nangam parce que nul n'est éternel. parce que état kenn mënu ko teg ci nit. parce que état dafa dépassé nit. donc loolu moo tax man mësuma gëm li début doon def ak ku mel ni moom cest à li ma gëm mooy que ne nos états dañ ko war a organiser comme ni européens mel nga xam ne ñoom bu ko say mandat jeex nga dem parce que institutions yi c'est des yoo xam ne ku ñëw mënoo dévier